ambition mais bëri na Sénégalais yoo xam ne tey wax seen xalaat rek ñu dugal ci biir kaso bi dëgg la. yow sa bopp ngay waxal wala kan. man dama bëri man bëri naa fi lu ma dal ci biir réew mi loo xamante ne du toon yoon. comme lan. fii dama dañ ma fi toroxal toroxal toroxal toroxal torox ba bëgg la lu ne daj naa ko fii ci biir réew mi. fii ñëw naa fi 2016 waaw. 2016 la laa ñibbisi di liggéey fi laa defoon ay bureau def deux étages yoo xam ne bi ma français yi yore économie bi cinq mille et quelques français entrepreneur MEDEF ñu jële ma Washington fay ma xaalis bu bëri ma ñëw waxal leen lan mooy inclusion économique ma critiqué seen politique ne leen lii ngeen di def jeunes yi nekk ci biir diaspora ci biir quartier yi c'est pas normal parce que maa ngi doon liggéey di jàppale jeunesse bi foofu ma leen doon jël di leen yóbbu France mais buñ États-Unis di leen former di leen indiwaat mais problème bi mooy dañuy jàng ba pare parce que xarit jot nga dugg wala ngay naar wala nit la jox nga liggéey xam nga la fa xew Pierre Gattaz mi président bi ooma à côté ñoom ñëpp tàccu ne ma li nga wax critique nga ñu may dëgg la qu'est-ce qu'on peut faire ma leen financé leen xale yi ñu financé jeunes yi fa nekk yëpp ñoom Moussa Camara tey ñoo yore économie bi jeunes yi ci quartier bi Macron sax daf koy conseillé ma ñëw sama réew ñu invité ma Pikine ma wax li ma xalaat ci réew mi ñu daggate ko envoyé ko ñoom Mohamed bin Abdallah Dionne bi nekk candidat tey moom moo ma woo 2 heures du matin di ma di ma menacé ah bon barke alxuraan karim mu may dégg. menacé la naka. menacé ma ne ma li nga defal nii songu président pauvreté bi ngay wax amul ci biir réew mi ma ne ko la nga wax foo ko jëlee mu envoyé ma vidéo ne ma leeral la ko gisee point net. te on va faire face te du ma la protéger parce que agent secret yi ñu ngi lay topp barke alxuraan karim ma ne ko boo dee yàlla nga taw xeer man du ma ñëw suma biir réew. yow nga xam ma man ma nekk kilifa sa mu la doon fekk foo xam ne assisté yow sa boos laa doon waxal muy yem ku la may ñëw Vienne di ko fekk Nations Unies di def discours pour l'Afrique jóge Washington. moom assistant waajooju loon moom muy buuxante bu gis bu gis président Macky Sall pour amaat place pour ñibbi si fii ma koy sàq ak moom moom xam na fi njaar mu nekk sama grand may dem këram di ko seet ak jabar bu ma ñëwee Vienne mu may taal ataay ñuy waxtaan mu ñëw ci réew mi ñu def ko premier ministre mu def ma noon première heure dàq sama ak président Macky Sall moom ñu ko wër dem dagg vidéo bi wan ko président bi ne ko con ñaa sa kaw la jëm ñu toroxal ma ci biir réew mi lu nekk ma daj ko fi. ñu toroxal la naka. mais wax naa la léegi président premier ministre. la woo di la menacé <laughs> écoute tout le monde vit vit vit a, a vécu. Non, des moi des, je des, des, ouais, mais man ñu menacé la. waaw parce que xëy na da nga ñëw rapproché wu de. rapproché wu de kii. ñu ñu xëy na xam nga homme politique bu la woowee di la boo leen sekkul dara du la du la menacé. cest li ngay wax mën na koo mën na koo naqari. du ci mën dara. mais mu jàpp njàmburam mais homme politique boo leen boo leen sekkee boo leen jëflantee. Euh, c'est que nga ñëw indi sa projet. Euh, nga ñëw présenter des projet à l'État nga ñëw président recevoir la defal la teraanga le président ne reçoit pas euh, ne reçoit pas facilement les Sénégalais. donc boo ñëwee nga dugg nga dugganteeg ñoom ngay liggéey ñoom ci ay projet ngay wax ñuy dégg ngeen di jëflante buñ la déggee buñ la déggee ngay wax yenn mën nañ la menacer normal lu nag. donc yow da nga ne man dama ñëw ñu jël ma duggante ay projet man sax lu ma ñu ay projet man képp ku ñu nguur fi ci réew mi damay at man damay conseil ay président yu bëri ci àdduna bi loolu yàgg na balaa may ñibbi Sénégal man façon président bu nekk daf may woo may wax ak moom. président Abdoulaye moom fu njëkk indi 2008 ba booy def politique yëpp kenn jugagut du ma laaj lu mu xalaat ci réew mi mu ñëw tëjoo moom da ko wax président Macky Sall jox ma respect comme petit frère am. su ma xamee lu ma xalaat ci réew ma ñëw di ko seet si boobu 2012 la ba léegi su ma amee lu ma xalaat ci réew mi di ko ko bind mu may tontu ci saa si jox ma respect bu bari nag def ma rak waaw bàyyi ma pare foofu rek mais certainement buur kenn du ko yedd ci penc bu fekkee ne yow non yedd ma ci bu fekkee ne yow bu ah, ne yow Macky Sall may na la honneur waaw mais di ko bind di ko wax problème réew mu lay tontu. man maa la gën a xam est-ce war nga dem taxaw diggu Pikine. non parce que dañ maa dagg te li ma wax di ko di ko di ko di ko yedd en public. man damaa yeerlu par exemple dama ko tuddul sax danga ma dégluwul foofu discours YouTube mën nga déglu lépp dañoo dagg te li ma wax man la ma fa def li ma wax Medef moo gën a garaaw France. fii dama jox diagnostic depuis indépendance lii moo fi xew léegi yéen jeunesse bi seen responsabilité lan moo doon ne warul nekk juste état bi yéen da ngeen war a aussi créer seen opportunité man dama ñëw créer samay opportunité xaaruma état kenn warul xaar état loolu laa wax. ñu dagg tey fi may waxee ne PSE bi duñ ko wax dañ ko war a jëfee ñu ne man maa ngi critiqué PSE bi maa ngi songu président mu envoyé man Mouhamed Dione bi ma woowee dama ne ko est ce a tàccu man kilifa laa du ma ñëw ci digg réew mi. di taxaw di xas président bi xam naa état man nu muy demee état bu gën a mag laa dem ba ci kaw Maison Blanche mu yore àdduna bi man def naa ay négociation yoo xam ne su ma ko toogoon fi doo ko wax doo gëm est-ce que dama xam état fa mu gën a magee nag pas ci réew mi de bitim réew. ku xam état léegi waaw léegi man su ma defee loolu ku xam état il ne refuse pas de déférer. waaw euh, d'accord waaw mais non lu ma ñëw dinañ fa ñëw léegi man ah. léegi su ma ñëwee wax ba pare même su fekkoon dama defeere ba mu nekk premier ministre dangay dimbale sa dimbale Sénégal président bi waroon na ma wow ba ma ñëw ñu waxtaan si ma mën ko leeral lu mu demee mu dem wax président bi ñu wax parce que man aussi am na lu may indil sama sama sama réew man mën naa indil apporter président Macky Sall lu bëri mais ñoom dañ ko doon utal ay noon te tey président xam na ko. ni ma ko déggee muy waxee ni dem na ba xam ne ñu ko doon utal ay noon yëpp ñoom ñooy vrai noon yi fi nekkoon. parce que képp ku baax ci réew mi du man kese ah, jóge bitim réew ñoo war a liggéey utal nañ ko def la ko noonu. ñu mel ni ay Ousmane Sonko li ñu wax nii yëpp tey dëgg la li ñu doon wax ba inspiré jeunesse bi li li doxul ci réew mi ñu koy wax ci jeunesse bi man su ma doon président Macky Sall démb dama ko doon déglu